man may sëñ ñu dellu si ci sunu waxtaan ci sunu info point net ah, waxtaan yépp nag ñuy amale mu nekk ay waxtaan yi nga xam ni ñu ngi am en ligne de mire 2019 parce que ñun wax xalaat nañu ne 2019 kat élection yi ah, dafa war a doon ay élection yi nga xam ni dañuy tànn parce que dañoo seetlu ne que ni souvent élection yi am Sénégal dañuy folli et différence bi ci nekk nag mooy toujours rek dañuy jóg ni kii baaxul kii baaxul nañ ko dindi mais xalaatuñu ci nan lañu war a tànnee ki ko war a remplacer ba tax na doxin boobu dox nañ ko pendant cinquante quatre ans te amul mucc maanaam résultat yi amul dara di nga xam ni ah, am na ci ñu ni nag nanu fexe ba année 2019 au lieu que ñu folli rek waaye ñu tànn ah, pour nga mën a tànn nag il faut que nga tànn ki nga xam ni kat yow xalaat nga ni moo gën a war a mën a yor liñ ko war a jox donc il faut que mu nekk nit ku am programme il faut que mu nekk nit ku am potentiel waaw ah, looloo tax nag sunu info point net ah, jóg ci beneen émission bu ñuy wax beneen baat bu bees ah, di liggéey pour conscientiser population bi ci doxalin bu mel noonu ñu seetlu que ni année yii timit ay xale yu bëri yi nga xam ni dañoo juddu après les indépendances ah dañoo dugg ci champ politique bi xale yooyu nag ah, bu ñuy wax patriotisme la ñuy wax maanaam bëgg sa réew ah, bu ñuy wax dañuy wax dog cordon ombilical bi nga xam ni moo lié Sénégal ak France ah, depuis bu ñuy wax xale yooyu transparence la ñuy wax dans la gestion des affaires de l'État ci kaw loolu nag la ñu dellu siwaat euh, di waxtaan euh, ci pàcc bi ñu gën njëkk mujjee génn nii ñu tuddee woon ko première partie boobu la malédiction euh, sur le pétrole c'est-à-dire pour yee nit yi kat que nii pétrole mën na indi fitna ci réew maanaam ay ressources la yi nga xam ni mën na indi fitna ci réew nan la indee fitna ci réew bu ñu demee ba nga xam ni ñi nga xam ni ñoo séq pétrole bi xalaat na ni kat ñoom ñoo war a jël li ëpp pour ñoom en fàtte que ni en fait ressource boobu population bi yëpp ko moom ñu waxoon ne déjà ñun suñu nation yi ay ethnie ñoo ko composé ah, donc nekkul benn affaire bu homogène euh, la deuxième chose dañoo am ay distinction aussi au niveau de tarixa yi euh, ni ñi voilà religion bi ñun ñëpp doonuñu nu ñu xalaatee benn donc yooyu yëpp boo amee différence yooyu amee ñu dellu si ñu indi pétrole boobu kat pétrole boobu on comment on appelle ça bénéficié wul maanaam du askan bi moo ciy jariñoo ah, bu keroogee kat yooyu ay poudrière la yi nga xam ni mën na indi fitna ci dëkk ñu ni balaa loolu nag nañu waxtaan parce que bu waxtaan amee rek xëy na parfois réeroo du am di fàttali rek que ñi yor réew mi loolu il faut que ñu bàyyi ko ci seen xalaat il faut que ñu xalaat commencer xalaat pour ñeneen ñiy waaye ñëw avant ñun. parce que bu ñu toogee di xalaat suñu bopp rek di xalaat ne lépp ñun ñoo ci war a ëppale bu keroogee dañuy dox ci yoon yi nga xam ni yoonu juumeel la parce que ala kulyaalin ah, nit day ñëw jàll Senghor jàll na fii tey ñu ngi koy wax ne ma nga àllaaxira Abdou Diouf jàll na fii fi Abdoulaye Wade jàll na fi Macky tamit dafay jàll et ñeneen ñi fi toogoon ñëpp tamit ah, jàll fii tey ñeneen na leen remplacer am na ci ñenn ñi nga xam ne ñu bari fàtte nañ leen donc nañu commencé di xalaat kat pour construire suñu réew construire pour euh, ëllëg xale yi ñëw parce que am na ñenn ñi nga xam ni tamit ci kaw yërmande boobu ñu am pour seen peuple ah loolu moom mooy marqué aussi seen nom dans l'histoire ba kenn du leen fàtte donc mën nañ ci joxe exemple ay nit yu bari mais nañuy dund pour suñu peuple rek bu ñu dund pour ñun rek ah nit ki dafay doylu lu mu war a am ci àdduna donc bu keroogee rek fu bari dinañ fa dinañ fa dem donc tey ñu dellu siwaat ci débat boobu nga xalaat ñu xalaat ne kat war na am te débat sur le pétrole benn enjeu la bi nga xam ni euh, kenn mënu ko faxa euh, faxas noonu donc lu ñu def dara rek euh, lu dul bàyyi leen ngir déglu président Macky sàll moom mu wax ñu lan mooy xalaatam ci débat boobu Le pétrole, malheureusement, est un domaine assez spécial et assez spécialisé, où ceux qui en parlent le plus n'en savent rien du tout. Et ceux qui connaissent ne parlent pas, parce que leur éthique et leur responsabilité et l'exigence de responsabilité dans ce secteur fait qu'on ne peut pas se permettre à tout instant et à tout moment de tout dire et dans tous les sens. Et je dis pétrole est une... La recherche pétrolière activité sérieuse qui par un code pétrolier, une loi. Ici, elle date de 1983, qui définit tout le cadre d'intervention. Tout, rien n'est fait au hasard et personne ne peut de s'amuser en cette matière sur les conventions pétrolières. aucun gouvernement, aucune autorité, puisque tout est régi par le code pétrolier, qui lui-même a défini et a renvoyé vers un décret qu'on appelle la convention type, qui définit comment le contrat il est signé jusqu'au moindre détail, à la moindre virgule. Et à l'époque, le Sénégal s'était fait assister par la Banque mondiale, qui a, qui désigné des experts, des consultants émérites, des cabinets d'avocats. qui ont écrit cette loi avec les experts nationaux et l'accord d'association, tout cela est annexé à la loi. Donc comment on peut penser qu'on peut se réveiller, on donne le pétrole à Massamba ou à Mademba parce que voilà, on veut s'amuser. Et on a quand même le courage de le dire publiquement. Et à la limite d'importuner les Sénégalais. J'ai entendu parler de, de plaintes Les gens peuvent aller au pôle Nord s'ils veulent faire des plaintes, ou à la planète Mars. peuvent aller où ils veulent. Mais il faut que le débat soit sérieux, soit un débat sincère et, et, et un débat qui tienne la route. Ensuite, quand on dit que le Sénégal a perdu des milliards parce qu'on ne nous a pas payés dans des transactions, c'est qu'on ignore comment fonctionne l'exploration pétrolière. on ignore ce que dit la loi. Et dans tous les pays du monde, l'exploration pétrolière, comme c'est une activité très risquée et à fort potentiel de capitaux, c'est une activité défiscalisée partout dans le monde. Mais enfin, nous sommes au Sénégal aussi, il faut accepter la liberté de, de dire ce que l'on veut, même si c'est insensé. C'est la liberté aussi des gens. Mais enfin, je, je crois que nous devons nous concentrer autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous devons faire en sorte que cette jeunesse puisse avoir un avenir prometteur, que cette jeunesse puisse avoir un emploi. Et l'emploi, c'est l'économie qui le crée. C'est dans les dynamiques de croissance positive et durable que l'emploi peut être créé. Ce n'est pas dans le verbiage c'est pas dans les promesses politiques non plus de gouvernements qui n'ont pas de repères. Mais c'est en travaillant sérieusement dans tous les secteurs, comme nous essayons de le faire en ce moment, que les secteurs vont générer l'emploi. ñu déglu euh, président Macky Sall pour ñu xayma li mu wax rek. Euh, président Macky Sall dellu si waat na ci difficulté yi am pour mën a attirer déjà ñi nga xam ni ñoom ñoo yor technologie bi pour génne pétrole bi foofu biir Sénégal euh, mu ni loolu du lu yomb mais loolu tamit euh, ñi nga xam ni ñi ngi suivre un peu politique bi ak coow di am Sénégal sur le pétrole depuis ñu commencé wax ne pétrole bi foofu feeñ na ñu bëri dañu accuser woon président bi que ni frère muy Aliou Sall ah, loxoom taq na ci li nga anam bi nga xam ni rafetul daal ah, ci affaire pétrole boobu et notamment ñu tudd ci tamit ay entreprise ah, bu mel ni Petrotim bi nga xam ni gis nañu loxoom ci biir ak beneen waay bu ñuy wax Frank Timis ak yooyu donc mu nekk ay nit yi nga xam ni tamit ci àdduna yëg na ne nit yooyu Euh, mu ko mel ni Frank Timis boobu maanaam mi ngi ci ay lëndëm lëndëm daal nekkul nit ku leer donc ci kaw bu ñu déggee wax bi président bi wax noonu maanaam difficulté parce que tamit loolu laay bugg a wax suma mbokk Sénégalais yi à chaque fois na ñuy déglu bu baax nit yi li ñuy wax euh, li ñuy wax euh, parce que li Youssou Ndour di wax li lees waxul loolu dafa baax ñuy analyser ak situation beeg yépp ñuy analyser lan la kii bugg a wax ak lu tax mu wax lii. donc bu taxawee wax ni dafa am ay difficulté ba tax na am na ay aventuriers yi nga xam ne dañ leen di faciliter euh, c'est-à-dire au départ dañ leen di bàyyi ñoom it ñu dugg ci parce que ñooñu ñooy mën a attirer yeneen yeneen compagnie ainsi de suite maanaam dafa mel ni rek onze booy sànni takk ci benn jën bu ndaw pour jën boobu jàpp gën jën bu gën a mag xëy na ci wax loolu la bëgg tontu foofu parce que bi ñu taxawee ñu bari daal ne wéy ku mel ni Franck Timis nga xam ni setul leerul euh, ñu dugal ko ci pétrole bi foofu bu taxawee ne kat dafa am difficulté pour ñu attirer ay investisseurs ci sunu pétrole looloo tax yenn aventuriers yu ñu leen di bàyyi donc loolu mu ngi expliquer que ni kat difficulté yooyu moo tax ku mel ni Franck Timis peut-être ñu bàyyi ko mu ci euh, mu ci mu ciy dugg ah, beneen bi mu dellu siwaat wax euh, que kat parce que comme ñi ngi koy taqal aussi di wax naan frère mu ngi ci mu ni dafa am benn cadre dafa am législation bi nga xam ni ah, moom moom mooy ŋànk affaire petrole bi ba tax na kenn mënu ko jël rek di ko jox ku ku ku leen neex donc foofu tamit mu ngi bëgg a wax ne ah jóguñu rek di ko jox sama rakk walla leneen walla jox ko diw parce que moo ma neex. waaye dafa jaar ci benn processus bi nga xam ni loi la donc foofu tamit dañuy invité Sénégal yépp ñu dem xool yi le code pétrolier dafa baax nag pour surtout ñi nga xam ni bëgg nañu jël réew mi ñi nga xam ni bëgg nañu xam politique bi comment ça marche ñi nga xam ni bëgg na nañu xam seen dëkk lu ciy dox parce que alal bi yéen ko moom donc alal bi yéen a ko war a soy euh, saytu du keneen moo leen koy defaral donc ce code pétrolier il faut aller le voir faut aller voir Il faut aller voir loi euh, 1998-05 du 8 janvier euh, 1998. Donc, dem càmbar yooyu xool leen xam ci lan ngay wax walla sax xam dara ci liy xew sa réew loolu dafa am solo trop et ci conclusion am nag ci li muy kiiwal euh, loolu la tënk daal di nag timit woote ne war nañu waxtaan ci maanaam nan la ñuy def petrol bi ah ci kaw loolu tamit ah, ku ci mel ni Ousmane Sonko nga xam ni eh, bind na livre ci affaire petrol bi moom it nan ko déglu lu muy wax. pétrole dafa am ñaar dafa am lu ñuy wax amont du pétrole ak aval du pétrole amont du pétrole mooy gis nañu pétrole. ndax évaluer nañ ko li ñu évaluer ñaata la nu mu toll ndax joxe nañ ko kan lañ ko jox ak ci yan anam nañ ko ko joxe est-ce que respecté nañu code bi est-ce sàmmante nañoo lii intere Sénégal balaa ngay xalaat intérêt keneen loolu mooy l'amont di pétrole amont du pétrole boobu nag moom Macky Sall ak ministre am ba fa newoon di Aly Ngouille Ndiaye te tey ñu jox ko intérieur ñu ànd ak rakkam di Aliou Sall ak ñeneen ñoo nga xam ne seen i complice lañu dañ cee def ay njombe yoo xam ne njombe yu ñu mënul a bàyyi mu romb la. naa ci téere boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko 242 pages mosoo dégg ko weddi wax naa lan la ci def moom Macky Sall lan la ci Aly Ngouille Ndiaye def lan la ci Frank Timis def lan la ci Aliou Sall def lan la ci Amadou Ba def ak keneen ak keneen ba pare proposer sax des mesures contre ñoom kon loolu lépp nga bëgg tey ñu teg ko fële. nga jël suñu pétrole dem jël saay-saay bu mel ni Frank Timis dem jël Ovidi Tender nga xam ne fi mu dëkk sax dañ ko faa condamné actuellement 12 ans de prison ngir corruption dem jël Edi Wang nga xam ne musul gas pétrole fenn nga jël suñu pétrole jox leen ko ñoom ñu wëlbatiku dem jaay ko xaalis bu dul jeex Cosmos ak BP am ci seen i seddoo ko ak Aliou Sall être dem seen yoon ba pare ne loolu kenn dootu ci wax su buggoon dialogue foofu la ñuy dooree su bëggoon dialogue balaa muy signal total. parce que français yi def nañ ko pression mu jël li ëpp ci suñu champ pétrolier dem jox ko Total ci condition xa xam ne baaxul ci Sénégal ndax pour la première fois ma gis ñu def ay tranche u cinquante mille baril cinquante mille baril ba ba fii ñu toog ni tranche bi gën a kawe trente mille baril la woon donc ay dix mille baril lañ daan jël ay ay douze mille baril nangam nangam mu dem jël suñu 2017 bi la ko signé dem jël suñu pétrole jébbal ko Total ñëw toog su bëggoon dialogue foofu la ñuy commencé. su bëggoon dialogue balaa muy dem di signer ak Mauritanie ne day jël suñu gaz xaaj ko moitié moitié jox Mauritanie da doon woo nit ñi ne kaale ñu dialogue loolu lépp mu def ko fi ba pare wowul sëriñ si woowul parti politique woowul société civile wowul kenn ba sànq suñu pétrole mu doog a dellu si ne léegi kaale ñu dialogue ci la ñuy am as ci pétrole bi naka lañ koy séddale xam nga loolu tappale la ma bëgg nag nit ñi xam ni gis nga ni ñuy séddalee la ñuy am ci pétrole bi jarul dialogue Euh, Sonko ci waxtaanam ci invitation bi ñuy wax d'abord Sonko nee na moom Macky Sall de toute façon euh, dafay wax tout le temps waxtaan waxtaan waaye li muy jàpp jàpp na ko ba pare donc en quelque sorte moom daal waxtaanam euh, woote waxtaanam gëmu ko noonu trop beneen bi tamit mu wax ne tamit invité wuñu ko donc xamuñu ban lañ ciy jàpp sax waaye anaa amaana ko mën nañu jël ñaar yépp c'est-à-dire invitation bi fi mu waroon jaar jaaru fa ba yegg si moom est-ce que invitation boobu bu ñëwoon dina dem euh, parce que euh, ci waxam i commencement waxam nee na waa ji daal de tout façon moom gëmul ne ku bëgg dialogue la daal ku bëgg waxtaan la donc euh, xamuñu exactement lan la la ban décision la doon jël bu doon bu doon invité nañ ko normalement bu doon Macky Sall invité ko normalement ah, beneen bi bi mu wax mu daal di ne de toutes les façons waxtaan bi ñu war a waxtaan euh, président bi bala moo wax pour xaalis bi ciy génn ci pétrole yi fu ñu koy dugal na wax nan la ñu joxee pétrole bi e foofu je pense que ni wax na dëgg wax na dëgg parce que am na ay contrat yi nga xam ni il faut que sénégalais yi xam parce que tamit sénégalais yi bu ñu la dénkee alal jox la dara nga wax leen ko saytul parce il faut que ci boppu Sénégalais yi ñu xam ne ñii ñu fal ñoom lañu jox pour ñu gérer leen ñoom seen alal Sénégalais yi ñoom moom affaire yi donc ñi leen di gérer nit ki kat bu lay gérer daf la war a wan que ni moom lépp c'est transparent cest à lii mu la yoreel di la ko saytul mu ngi koy saytul comme ni mu waree et donc je pense que ni bu ñu signé ay contrat ak ku mu mënti doon Sénégalais yi war nañoo am accès ci contrat yooyu. bu dee Sénégal yëpp mënuñ ci am accès bokk mu am ay Sénégalais yi nga xam ne xëy na ci société civile bi la ñu bokk wala ci opposition bi ñi nga xam ne wala député yi man je sais pas mais ñu xam ne daal am na ñi nga xam ni mën na ñu dem avoir accès à ces contrats là loolu moom mooy gën a nekk benn gestion bu transparente ci biir réew et loolu la ñuy xaar aussi ah sunu autorités yi ñu gën a leeral surtout benn contrat bi nga xam ni am na entre état du Sénégal Petrosen mi ngi ci biir ak Petrotim muy benn euh, société bi nga xam ni euh, gis nañu ka que ni jege na wala gis nañu bu baax loxo euh, Aliou sàll ci biir te loolu il faut que ñoom ñu gën a leeral ku ci mel ni Baba Baba Aydara je pense benn journaliste wu nekk Amérique wax na lu bari ci affaire bi wax na lu bari ci nan la ñu takkee. affaire yooyu mais ba léegi di resté na ay zone d'ombre yu bari yi nga xam ni ñii ñu jox sunu réew ne leen yéen ko war a gérer kat ñoom ñoo war a taxaw ni lii la kat lii moom moo ci leer ñu jógee tamit ci benn laxisme bu am ci biir réew moomu toujours rek ñu wax ni du kii rek justice daf fu war a nekk pour ñëpp nga nekk freeru président bi nga nekk faamu président bi nga nekk doomu président bi nga nekk doomu xalif bi nga de koo mënti doon ci biir réew moomu boo luubalee dara ci gestion wu réew mi danga war a rendre compte devant la justice da nga war a rendre compte devant la justice loolu waruñ ci am benn xaar ma yàlla alalu Sénégal alalu askan bi yëpp la te askan bi yëpp ñoo ci war a mën a bénéficier wu donc lépp luñ ci taqal nit lu leerul di nga xam ni tel loolu tel procureur de la république war na jóg di justice bi war na jóg ñu càmbar loolu xool ko bu baax xam li ci lëndëm am lu ci leer président bi na bàyyi di jël euh, nu ñu koy xëy coom-coom di ko teg ci kaw ay dossier wala yu demee noonu non non nanu génne affaire yi parce que ku jàpp ku sàcc le peuple bu ñu sàccee benn ginaar parfois ñoom dañuy jóg sax di dóor nit yooyu ay dóor yu metti te ñooñu dañ leen di tëj tëj yu metti te ñooñu parfois double victime lañu donc tamit ñi nga xam ni nag ñoom ñoo yor réew mi dañ leen jël askan bi leen jël fal leen euh, ñooñu ñoo war a gën a rendre compte loolu moom moo war a dox ci réew moomu donc en partie boobu moom li mu wax lu am la lu ñu war a xoolaat la te débat boobu kenn mënu ko effacer débat boobu il faut que ñu tegaat ko ci taabal bi et fii ak 2019 ñun luñ ci mën de pour conscientiser la population dinañ ko def et di wax ne nag euh, tout cette population 2019 mi ngi ñëw te 2019 la ñuy nag woo ñi nga xam ni ñoom la ñu ne woon kat yéen la ñu dénkoon. ñu def bilan ak ñoom ñu leen li ngeen doon saytukat fan ngeen ko dugal il faut que ñoom ñu jox ñu ay réponse bu ñu mënul jox ay réponse kat ñu jëm leen faxas ba teg fi ñeneen mais ñoo ñu tamit ñu leen di demander ne bu leen bàyyi ñëlekat comme li ñuy wax à chaque fois non nanu bàyyi déedéet nanu commencé ñi nga xam ni luubal nanu dara ci askanu réew mi ñu sanctionné leen jógee nag ci affaire par par affaire bi c'est pas dama bëgg kii wala dama bëgg kële non affaire bi affaire u réew mi la saytu ñi nga xam ne ñoom la jox réew mi fan la ñu dugal suñu alal nan la ñu sa ce pays ak fan la ñu bëgg yóbbu ñi ñu bëgg a jox tamit ñu woo leen leneen fan ngeen ñu bugg a yóbbu ak lan ngeen am ak nan ngeen ko bëgg a piloter maanaam il faut que ñuy laaj loolu ñun loolu moo ñu intéressé ñun du question dama bëgg kii dama bëgg kële kii moom moo defoon lii kii moo waxoon lii non c'est pas ça le truc le truc c'est kii fan la ñu jëme kii lan la yor. kii lan la mën kii lan la fi def kii lan la fi defoon voilà ñu xam loolu yépp téye ko bu keroogee nag en fonction de ça ñu tànn ki nga xam ni kat xalaat nañ ni moo gën a taxaw pour mën a yor réew mi kooku ñu jël ko jox ko lenge yi bu ñu doxee noonu d'ici quelques années rek bu soobee yàlla di yenn dëkk yi ñu rawoon yépp ñun tamit dinañ leen dab di daanelee rek di rafetlu bu baaxu si parce que li président bi def loolu moom mooy yoon. woo ñu jëpp na leen kaa ñu toog waxtaan il faut que pas mu am benn animosité entre ñi yor ak ñiy opposé wu affaire de responsabilité la te nit boo demee ba toll fenn ci benn degré taxaw ne kat man dama leen bëgg a jiite wala nit taxaw ba nga xam ni moom moo leen di jiitee day doon vrai kilifa et vrai kilifa moom mooy ay kasaw kasaw doo ci dugg affaire yi kenn moomu ko waxtaan la bu président bi wootee waxtaan. nanu jóg waxtaan ak moom wax ko li ñu xalaat même bu dee dafay luubal wala li mu ci limu ci laxas mais ñu wax ko dëgg bi ñu xalaat mais bu mu nekk ay affaire animosité euh, ki ñu jox réew mi tamit nay def dara ci xelam na am yërmande ci ñi ko jël dénk ko dañ ko jël dénk ko senegal yépp bu ñu jógee jël benn affaire dénk ko nit c'est que dañoo am kat yaakaar ci nit boobu am wóolute nit ki boo doonee gor nag dëgg di nga fexe ba biñ la jëlee ba njiit la rek sas la bu metti sas la bu metti il paraît hein que ni temps wu sallallahu alayhi wa sallam ah kuñ ci mësaan ñoom Aliou ñoom Ousmane kuñ ci mësaan fal da ngay tiit parce que ñooñu ay gor lañu ñu ay jullit lañu ñu bu ñu gën a gore bu ñu gën a ragal yàlla bu ñu jógee ba jël kenn fal ko na am ragal degré boobu. na xool tamit ñu ko fal rek xool xale yi xool jigéen yi xool xool population bi ñii dem di jël ay gaal di di deewi ñii di daw ñii di def lu lu tax parce que li ñu leen waroon a gérer gérer ñu leen ko comme il faut ah yàlla mi ngi ñuy dimbale nag parce que dégg naa sànq ci kaw waxtaan ah, nit di wax ne pétrole mën na doon bénédiction effectivement mën na doon bénédiction te yooyu yëpp ay test la rek ci doomu aadama ci kaw suuf. nit yi sonnoon nan trop bay daw ñu jekki-jekkee yàlla génne benn alal bi nga xam ne nee na kat lii dencaloon naa leen ko seen suuf donc bu ñu amee yërmande ci sunu population rek bu keroogee bénédiction la bu keroogee test boobu jàll nañ ci mais buñ ko dem di ko wutee ay 4 x di ci dawal ay avion di yóbbu ay samay xarit samay doom fële bàyyi toute cette population muy souffrir donc ñu ngi rafetlu waxtaan yooyu donc gars yi na ngeen nanu jël encore jaareel yoon parce que tamit euh, ku ci mel ni xale yooyu yëpp ñuy wax que ça soit ay Sonko que ça soit ay euh, Dem euh, je sais plus ce commandant là bi ma doon dégg temps yi que ça soit yeneen xale yu bari ñu ngi foofu yeneen nit yu bari ñu ngi foofu yi nga xam ni jóg nañu. ah di wane benn patriotisme wane ni dañoo bëgg seen réew kat te lii la lu bëgg ñu def ko ci réew mi du lu bon cest à il faut pas le ah, comme ay ay nit yi nga xam ni dañoo bëgg a yàq wala yu demee noonu non xëy na defar moo leen ci yëkkati bëgg seen réew moo leen ci yëkkati donc euh, nanu nanu leen nan leen déglu nanu leen nanu leen ubbil aussi euh, ñoom it fi ñuy def erreur parfois euh, nan ko nan ko xoolaat bu ñu dem ak ak trop de nu ñu koy waxee. ak trop de passion ak trop de xol nañu dem toujours ak xel su ko defee rek réew mi yépp moom mooy baax dellu di leen baalu àq di leen baal àq di leen nuyu bu baax a baax di leen jox euh, dox daje ci beneen émission ci beneen baat bu bees avec euh, sunu info point net asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.